ñu gën a teg suñu tànk ci taqwallah lu la waay mën a woo ak lu mu la mën a digal déglul ba xam taqwallah ak i bokkam dana ca bokk waaw wala déet su ca bokkee yoon waa nga noona su ca bokkut dégluwaatal bañ a tàyyi ba ba nga ko cay dégg walla nga bañ ko caa dégg loolu nag moo tudd ku way nit ku way deng bala ñu see ñëw ñu bokk jaal suñu bopp suñu doom yu ndaw yooyu nga xam ne ci fan yii ab natt wàccu na ci seen kaw te doonuñ ca dara xamuñ ca dara waaye lu tiis la ak wayadi nag mën na koo waral yal na leen yàlla jox xolub muñ te jox nu ko néew na ku am ñaar ñett te dalu ko waaye la fa yàlla du jeex yal na am kuutaay te kuutaay ya toog fa bañ fekk seeni njariñ ñoom ñépp amoon na fi nag du yàgg gudd dellu amaat kon ak wayadi am na ci ku way ak wayate la ñuy waxtaane jële ko ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ñuy fàttalante laajees na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëf yi ana bu ci gënal yàlla tabaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mooy ba ca gën a sax lu mu néew néew nit ki su xamee la muy def fa ko teg benn muy ak jaamu yàlla lum néew néew na fexe ba saxal ko waaye su tàmbalee loo xam ne it jaamu yàlla yi ñoo koy jariñoo it tamit lu dagan na fexe ba saxal ko lum néew néew ndax loolu moo gënal yàlla ci li jàmm bi def lum néew néew na ko saxal mooy na ca way deng rek Aïcha radiyallahu anha nee na li yonent bi gënoon a bëgg nga xam ne ku ca teg sa tànk buñ ko sañoon a wax bu doon xaritoo yow lay def ab xarit mooy ki gën a way ci yéen mooy koo xam ne lu mu tàmbali duutu ko bàyyi te lañ daan tàmbali ci jamono yonent bi may xaritoo ka xaritoo xaritool mooy lu baax moo tax nit ki jaaduwut jekkut muy def njur njuralal jàpp njuru njural jàpp su ne cap fii ba nga yaakaar ne fii la mu ne waat ñokket ba nga ne dem na de mën naa faa toogaat tuuti bu dellu si waat fi mu jóge wala muy dem ak a muy wayee di mat sëkk moo tax nit ki li muy def muy ak jaamu yàlla jëlale nañ ko waaye su dee ay jëflante digganteem ak jaamu yàlla yi tamit jëflante bu dagan bis bu set war naa fexee romb fa mu toll woon démb tey ñaan yàlla defal ko mujj gu rafet moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taamu wuutoon musu koo tàmm koo xam ne la muy def day mel ne njur njural njàpp koo xam ne nag tàmbali na mbir muy ak jaamu yàlla wala muy luy jariñ jaami yàlla yi te muy bàyyeekoo ci moom lu mu néew néew Euh, su fekkee ak wéradi moo dox digganteem ak loola wala ay yiteem mayatu ko su boobaa kenn dutu ko ca mën a yàdd ndax la ko la gàllankoor la am waaye cuut cappet cuut cappet loolu moom fi la waaye di tàmbalee ca la yam te bokk yi nattu boobu am am na loxo yum jaar ay yoxo yum jaar yoxo yoo xam ne Euh, la ko andi ca ñoom yaakaar la woon ak ak wóolu ak ñàkk pexe kon lu ci way yorati te jaamu yàlla yi di ko jariñoo rikk na ca way deng lu ko ca war mu def ko te mënut a defandoo lépp benn yoon waaye muy def par ndànk ndànk lu mu ca romb mu rafet mu fës yéene mu bañ a dakk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li tax way am solo way deng nee na li nit ki di def ci jaamu yàlla walla mu di ko def ci jaamu yàlla yi ñu di ko jariñoo su koy def di ko def di ko def lu mu néew néew ba sax ba sax su demee ba ne làcc mënatul dara it yool baru taxaw waaye su demee ba ne ci tukki it ba jot ga mayati ko it yool yool baru taxaw yool baru dakk ba ba muy wàññi سني دمي تي القران دا نتي فك سني بروم دي واخني لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين مو يلا نانا موم مو بند نيت تا نامكو صوبه نامكو صوبه خول نكو خولات كوني ني دا لاكو بغي وون waye ne nit koku sedd na ko ci mbindeefa mi loo xam ne sedd ko kenn muy xel ak xalaat tàmbali ak àggale waaye nee na léeg-léeg nit dem wayadee wayadee wayadee ba mujj dellu fa mu jóge woon dellu na meloon bi muy soog a àdduna mënut dara day bank ay yoxoom buñ ko tàllalee ci niñ ko taawiile ci waxi maam ñu ne buñ ko tàllalee mu ne maa ngi nii yoruma dara andaliwuma dara lu mu def dañ ko koy defal mu ne yàcc nee na nit dina demaat ba tolluwaat foofee te fekk mu ngi dooleem ak kàttanam la ko fa yóbbuwaat mën naa màggat wala daal mënut ci aw yaramam nee na ba mu des nag ñi nga xam ne ñoom bañ tàmbalee man dara lañ tàmbalee def loo xam ne dañoo fas yéene fii ñu ngi dund du takk nee na ñooñu suñ demee ba mënatuñu it yool ba day wéy إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ما يلبى هم تدك سندم مكة بموتينكم فاتلنا بتاعي نه دون كتاي أيون لتخ وي ما تجنك سن دي گنتك سونو بروم سن دي گنتك سونو مروم با سا بو وخه نيت خار خراب بتلا am mak mu ne fi ci dëkk bi dem naa dem dem ci at ba xàmmeetut ak njabootam ñaan dafa naax waaye la muy naax naax xam waxtu julli bokku ci da caa woyoon deng jamono ba muy man daa woyoon ci toppatoo waxtu julli di ko topp saa bu wax waxtu wi ne yullu rek mu toj bopp bi ni koy wax ci njàngale suñu bisu waaye fam tolloon ci waqafa kenn du ko mooy dem ba fa kamil ba nekk mu génne ko waxaf la ñu bëgg a waxaf dellowaat ko loolu nag la ko ko way mooy daa tàmbali way ca deng lii ay jëf la muy jooxe waxtu yi waaye lee ay wax la muy jàng alxuraan ba mu ca waye ak way ba dem ba xàmmitu waa këram nit nee na ko yaay sama baay mu ne ko déedéet kooku mu ne mën a diw mu ne ko no diw man mu ne ko sa doom mu ne ko déedéet aw ma doom bi tudd noonu kenn ko jàpp xamatut xaalis xamatut ñam wu tàng ak wu sedd xamatut ay doomam waaye waxtu yi moom kenn du ko ne waxtu jot na waaye kenn du ko génneel su muy waqafe bokk yi nag loolu mooy ak way am na keneen koo xam ne it moo kooku ñoo tolloo jamono am na bis muy lu ku tudd nangam sonn ca lool ñu defee ne maa kii lu mu koy doy mbaa jàmm la ndeke moo ko daa taalal rajo bi muy déglu tàgge yi rek waaye feek diwa ngi dund kenn du ko def ku dul moom ndax way kon bokk yi li ñu séq ak suñu borom muy jaamu ko ca way deng la ñuy jëfit te suñuy jàmm di ko jariñoo nañ fexe ba luñ ca wax bu dañ xanaa dogal bi yàlla dikk waaye luñ ciy jëfitam bu ñu ko xasee ba tàmbali ba mu dàkk bu doon loo xam ne saa bu jafe-jafe amee rek ñu wax ba loola weesu ñu génnaat ca yàlla nu ci yàlla musal moo tax suñu borom subhanahu wa taala jaarale ko ci njàngalem yonent bi ku taamu la ci jàmm lépp lu muy def lu mu néew néew mu saxal ko te way ca mooy way ca rek su ko defee ak payam di sax ba faw waye nak yalla taamuwut ko xamne day tambali di baye tambali di baye seigne mag bi nit neena ko da bëgg soxna bu soxna ni mu yomb yombi wuna na nañ naweti ay naweti nawet dem tak am neek fañ bëgg soxna sa ànd ak may ay xëy ak ngont bam mu ne te su ko nit ñew ne ko daa bëgg soxna mu ne ko julit bu ko man day sopp nañ ko lool demal seeti koo xam ne daray kenn nekku ca muy ab julit nga xool ba xam ne dara boolewul ak moom luy tee man koo denc nga laaju ña ko jur ñum doon soo xamee ña ko jur da nga mën a xam ci ko jum yoon fekkee ñoo ko suñ ko yor ci kañ ko yarloo du sore ak ñoom jikko wala muy wala muy ku leen gën su boobaa soo waxee kilifam bañ nangu mu nangu moom te jaar nangu ko jaar ci ay kilifaam yebalu muy dem di génn moom de bu nangoo te jaar ci ay kilifaam nga ñëw wax ma ko mu ñëw wax ko ko mu ne ko jàppal nañ la bis mu ne waaw ba yàgg mu ñëwaat. ne ko dañoo mujj fomm mu ne ko boo gisaatee boo déggaatee bi ñu la waxaatee bis ba yàgg mu bàyyi koo ko di ko def di ko def sëriñ bi ne ko mën naa laa jàpp la ci lu nekk da ci kàttanu suñu borom ba mu des ak way te mooy fulla ak fayda tey it mënuma fexe ba jàpp ci kuy àggale te ko tàmbaliwul dara lu nga dugg ko yéene yéene mënuma fexe ba nga àggale te tàmbaliwoo dara loolu mooy way deng rek dem sax ba ci ñaan gi suñu borom santane ci alquran nañ koy ñaan ud'uni astajib lakum amna ño xamne dañuy talal seen yoxo di ñaan di ñaan mu melne gisaguñ lañuy ñaan buñ bëgg tay waye ki way mom ginaaw xam na ne ko diglé mom du bay benn bis lay xey rek suñu borom sembeertal ko lo xamne sax jottu ko wona ñaan ndax xamul mo gën ci mom wala عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون موتاخ نيان كوكو ام نيو ني دانيي توك با دي نيان دي نيان دي نيان وروم خام خامي نيتل ناج ني با سوني بروم ديغلي سوني مام ابراهيم عليه السلام بودو سوني مامي دال تي اك بوك مام لا تي باس باس wa addin fi naasi bil xaj ba mu ko naan wool nit ñi digal leen ñu aj si màkka waroom xam-xam yi am na suñuy bind ci seen téere na ñaan nga ba màkka tàmbalee xumb ak ñaan googee nangami téeméeri at la wala nangami junni at waaye teewul bu ko yàlla digalee mu ñaan mu ñaan su ko su ko woote la mu woote rek ndax woote na ba tàyyi te gisul kenn ci àll bi lu dul léeg-léeg ay rab àll képp yuy sax waaye ndigal la ci am muy woy den saa bu xëyee di ñaan رب اجعل هذا البلد آمنا أك... هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات لولا يربم كوي نيان أبي ريو ممالي ني ممال فكي وكو منسنا واخ سخ كين كو خا مدا كوي لال مولال كو فكي وكو واي نيان لا كو ديغلو نيان نا تا واي تا نيان غا كون بوك سيني ديغنتي لي نيو ديغال اك سيني مرامي جام ورنا بنيو واخه ني وانا تا واي غو ما سخ war na it bu ñu waree jëf ñu wana ca way gu mat sëkk waaye loolu nag day topp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu politik ak waye di dong ci lañuy ñuy ndax mënoo ne benn mel wenn melokaan lañ yore melokaan mooy couleur léeg-léeg dañuy weex dal ba nga ne ak ah, ku weex la de nga romb ko ca ngoon mu ñuul kooku nga ne xanaa kii du kii mu ne xanaa kii du kooka mu ne ax ah kay contexte la woon suba gaa taxoon ma weex waaye guddi gi la laaj wala nga séen ci guddi gi mu gàtt tuguj nga xëy gis ak ne xanaa kii ma gis dama gisoon bii mu ne ah kay ko loolu nag fi la di tàmbalee fi la yam te ñun kat li ëpp ci suñuy biir daa mel ci ñoom lañ ko yaakaar kon nañ leen fi ñuk dem yaakaar yàlla rek mi nga xam ne laa yuxliful miaad lum la wax dana ko def te am nañ ci ay firnde bim ne kullu nafsin daiqatul maut ñépp gëm ne ñoom ci seen bopp dañuy dee tax ndax gis nañ ko dee ba tàyyi kullu shay'in halikun illa wajha ku ne dox na ci sa àll ba nga gis dëkk bu gent kullu man alayha faanin fii la diw dëkkoon gis fees na ko ba tàyyi moo tax mag ne woon adduna ñetti joxañ rek la diw moo moomoon lee moo dëkkoon fe fii lañ ko denc kon noonu yàlla ne kullu nafsin daiqatul mawt bis bu set ngay dégg ay tàgge diw dem na diw dem na diw dem na kiy déglu day defe ne moom demagul wala waragu caa mbokk nañ ne jàkk foofee te bàyyi di xool koo xam ne amutu melokaan su weexee ci suba gi bu ngoonee mën naa ñuul su gàttee ci guddi gi bu bëccëgee mën naa bu bët setee mu gudd boole ko di tuddoo mboolem li ñuy tuddoo fenn fu nit yaakaar rek am na ñu fa nekk di fa so di tuddoo lool te yàlla mën naa def sax faw wéeruwaay mënut a ñàkk rek waaye bañ fay wéru ci sax gën a amuñu wenn melokaan muñ mën a xàmme te ñooñu xàmmees na leen waye di dikkal na leen dal na leen ba noppi du leen wàcc yàlla nu yàlla musal ci ak waye di te joxoñ nu ba faw ci ak way la ñuy def suñ diggante ak suñu borom mu néew mu bari yàlla nañ ko mën a saxal la ñuy séq ak suñu moroomi jaam te lenn la warnu lenn la warunu waaye noo ko warlu luñ ko tàmbal yàlla ba mu dakk te yàlla musal ci pexe seytaane ak pakkam te def ci suñuy xol ak muñ yàlla moo joxe woon moo jëlaat yàlla moo joxe woon moo jëlaat junj naa ne kenn ku am ñaar ba ñett mas na laa dal waaye nag la mag digaloon ku bëggoon a xaru ñu tagar béjoo ko indi ci kanamam mu nekk ko loola tax di xaru mu lim yu bare bare bare bare bare mu ne ko bu sa waa kër yekkee taajal la mu tàng dana la tee lekka mu ne déedéet mu ne ko noy def mu ne ko damay ràcc di lekk mu ne ko addunaa mu noonu lu la fi mën a dab xamal ne yow ay nit yaa war a jàkkaarloo ak moom yaa ko war a saafara ndax in inni jaalu fi ardi khalifa ci jënn jëm la ko doon wax waaye jëmm joojee mënu jur ñun ñëpp kenn ku ci nekk day bu fam fa mu war a féete na fa jàpp ne mooy jëm joojee yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iri muslimina amin